yéen suñu mbokk internet yi mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee ba wopp bi di coronavirus yegsee ci diwaanab Sénégal ba léegi ñaari fan ci weeru mars bi wees coowal secret médical dafa nekk léegi ab mbir bi nga xamante ne ñor na lool askan wi ndax risque yi nga xamante ne feebar bi ci boppam da koy impliqué bile feebar nga xamante ne laal na àdduna wërngal këpp ndax covid 19 ci doole gi mu am ngir yóbbu ay bàkkan waaye tamit faagaagal dundu askan wi ci seen wàllu bopp jur na tiitaange gu bëri ak njàkkare ngir askan wi moo tax secret médical ñu jàpp ne ci jamono ji ñu toll lu war la rawatina ngir médecin yi dafay sax obligation discrétionnelle professionnelle te tamit nekk ab droit fondamental ngir woy feebar yi secret médical boobee bokk na ci pilier métier bu médecine ndax dañoo jàpp ni amul faj bu amul confidence te amul tamit benn confidence bu àndut ak confiance waaye tamit confiance bu amul benn secret naka la ko bindkat bu mag boobee di Bernard Ouilly waxee waaye li ñu mën a ñaawlu ci diwaanub Sénégal mooy bile obligation dafa mel ni léegi am na ñu ko tàmbalee salfaañee ndax ñenn ci askan wi dañuy dem ba napp bi wala sax ñi ci ñàkk seen bakkan bokk na ci kaa yu mujj El Hadj Ousseynou Diouf mi nga xamante ne dafa fësal information bi xam ne nii jabaru ndem si yàlla Pape Diouf mi nga xamante ne moom ci wàllu boppam Covid moo ko faat moom tamit moom tamit wopp bi daf ko dab ba ñu interne ko ci hôpital bu Diamniadio moo ne de information boobu dafa addu ci secret médical ndax secret boobee li ko wund bokk na ci information yi nga xamante ne médecins yi dañ koy jox wala personnel médical bi lépp li nga xamante ne tamit dégg nañ a interpréter wala comprendre te fii ci diwaanub Sénégal article 363 alinéa premier bu code pénal day teg daan képp ki nga xamante ne def na violation de secret médical boobee ci ancien droit bi violation secret médical moom dafa doon jaar ci pénal ak tamit ci civil lu mooy nag ay cas spécifique personnalité publique ku mel ni Boris Johnson premier ministre britannique ñu jàpp ni amul benn solo di fësal identité ñi nga xamante ne ñoo laale ak feebar bi di covid wala sax ñi ci ñàkk seen bakkan ndax jar naa fàttali secret médical moom couvrir sax ki nga xamante ne dafa ñàkk bakkanam. yéen suñu mbokk internet mën ngeen a abonné ci suñu chaîne YouTube groupe Bawol info officiel ngir ngeen di mën di jot xibaar yu wér te fu ngeen mënti ne ci ni mu gën a gaawee.